mbokk yi nga xam ne ni yéen a ngi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci àdduna moo xam muy ci réew mi wala bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel niñ koy àndee yéen rek ngir waajal bis bu tedd bi nga xam ne ni moo nekk suñu kanam muy màggalu gu njëkk gi màggalu Cheikhul Khadim te ñu koy amale fii ci Daaru Xuddoos di màggal gi nga xam ne nii ci la ñuy fàttaliku bis bi Serigne Touba Cheikhul Khadim tànnoon ñëw fii ci Touba dëkkaale ak boromam te joxoon ndénkaane yu am solo Cheikh Mouhamadul Moustapha mu taxawu ko bale ci sëriñ bi ndénkaane woon lépp mu def ko nam ko bëggee woon loolu moo sabab li ëpp ci askan wi wala li ëpp ci jullit yi naan màggaluk Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye loolu mooy cësaayul màggal gi. nin ko defee nag at mu jot di ànd ak ñi nga xam ne ñoo di waa diwaan di kuréel gi lëkkale mbooleem kuréel yi nekk ci biir Daaru Xuddoos te dundal bis boobu ñuy dem nag ci kër yi nga xam ne nii dañoo aju ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ngir ànd ak ñoom li nga xam ne ni mooy waajtaayu màggal gi waaye ànd ak ñoom diiru màggal gi tey nag ñu ngi ci buntu kër góor yàlla yooyu nga xam ne nii seen ab ànd sax ak Cheikh Mouhamadul Moustapha am na ci ñoo xam ne nii ci sëriñ Touba la tàmbale woon ñu wéyal ko ci Cheikh Mouhamadul Moustapha bokk na ci buntu kër bi nga xam ne nii foofu lañ nekk muy Serigne Beyti joor Amar di ziar bu baax a baax xalifaam Serigne Ibra Dior Amar waaye niñ koy defee ci yeneen këri cheikh yi nga xam ne nii dañoo aju ci Daaru Xuddoos benn tomb rek la ñuy waxtaane wala ñaar waa njaboot ga nga xam ne ni ñoom la ñu fekk tànn kenn ca ñoom mu yëkkati kàddu ci seenu tur boo leen gisee jataay bi nag mel na ni ñu ngi fekk sëriñ Mouhamadou Amar ak ñenn ci mbokki taalibe yi boo leen gisee xam ne ñu ngi waajal bis bu tedd boobu kon ngir jëkkante ak waxtu wi dañuy jox sëñ Mouhamadou Amar mu nuyoo ñu door a dugg nag ci thème bi nga xam ne ni bëgg nañ mu waxtaanee ko ak mbokki taalibe yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk ci àdduna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 mom mo ñëk fekk fekki Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci askanu dar Manko mom euh jox ko bopam ginnaw ba itam ñuy dox ci yoon woowu Serigne ibn Amar euh dadi euh, sanci ci ndigal Cheikh Mamadou Moustapha sanci fi ci khudus euh kon dal ñing ci kërëm di leen nuyu bu baaxa baax yeen ñëpp di leen ziaré inshallah euh jërëjëf Amar daanaka introduction bi sax duggoon nga ci. waaye dañ lay daal di poser question bi rek wala laaj bi nga xam ne nii dina tax mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñu ngi seetaan gën a xam dëgg-dëgg liñ fas yéene waxtaanee wax nga ko léegi muy Serigne bayti Ndongo joor Amar mu nekkoon kenn ci ñi nga xam ne nii dañoo àndoon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim waaye bi fi Serigne bi bàyyeekoo euh, ki ko fi jëkk a wutu di Cheikh Mouhamadul Moustapha ànd boobee dafa wéy bu ñu bëggoon a xam naka la ku tedd kooku euh, def wala lan moo ko boole ak Serigne ba mu ñew ci Cheikh Modou Moustapha lan ngay baxé mbokki taalibe yi nga xamné ñu ngi ñuy seetaan. euh Serigne Beyti Ndonga jor dafa nekk nak wajuram bi mu nekkee ak wajuram bi mu déggé Serigne Touba khadim rasoul la daal di joggé fofé nga xam ni fa la nekkan daal di tàggu ni ko dama bëggan buma amé ndigal ma séti ki ñuy wax cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul ba mu demee itam bimu ko féké mbacké Bawal wala ko fék mom nak bo xolé ci jamono yoy mom Serigne Beyti Ndonga Dior ci Zahir e, ci ati Zahir mom mo xawona ak e, ba mu diké itam la daldi gis Serigne Touba khadim rasoul waxtaan ak mom daldi ko jebal bopam daldi ko jebal na la sama bop ak mboolem askanu ko bépp fofé la djéblo ci Serigne Touba khadim rasoul dadi di Serigne bi ko ay jamono mu dadi di wat ci wajuram fofé nga xamné itam moy njaarnde euh fala ko digaleen ci wet ga mu sanc fa fu ñuy wax beyti lola motax sax ñuy wax Serigne beyti ndax dëkk bam mu ko sanc loo euh fofé ci njaarnde itam Serigne Touba khadim rasoul radiyallahu anhu fekk ci nako fa fekk fa wajuram fekk fa e, malik si Eh, naka noonu la fa jiite sëriñ bi nga xam ne moom mooy waajuru eh, sëriñ Bayti Ndonga Dior eh, sëñ Mor Gumba Binta foofee la waxee sëriñ bu mag bi ni ko na nga jiite ndax yow képp koo jiite mu dem aljana mu daal di leen jiite foofee nekk fa ba waxtu ba fa war a jógee kon noonu daal la ci gàttal noonu la jaayanteeg sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul fekk ko fii Mbàkke Bawal waaye jébbulu waaye walé mbolém askan dar Manko ko fep ci la lañuy wéy ba mujj gi itam euh, ñu exi fi nga xamni mbolém ay rakam ndax Serigne Ibrahima Dior Amar ak Serigne Paate Dior euh, ñom ñep ñok mom ño bok nday ak baay té ñom ñep la Serigne Touba khadim rasoul cheikhalan euh, wa kër Serigne Ibrahima Dior ñom ño nek mbacké Bawal wa kër Serigne Paate Dior ñamit bok nañ ci ñi magal ñom ñepp ci bir Daaru Xuddoos lañ ñom ñepp ci Amadou lañ aju kenn ku ci nekk itam yaa ngi waajal bis bi nga xam ne ñu ngi koy waajal incha allah. jërëjëf sëñ Mouhamadou Amar euh, ci euh, tontu yu am solo yooyu tënku na te matale na xam naa beneen laaj bi ñu ciy teg rek bala ñu euh, noddu timis muy comme noonu nga ko waxee gannaaw ba nga leeralee tabbi gi nga xam ne nii sëriñ boobu tabbi na ko muy sëriñ Beyti Ndongo Dior Amar tabbi na ko ci kër Cheikhul Khadim gannaaw bi mu amee ndigal ci ay waajuram fekki ko foofee ca Mbàkke Bawol jébbal ko boppam ak mbooleem askanu Darmanko. Euh, wax nañ ko léegi ginnaaw bi mu fi bàyyee ko mu wéyal ndigal loolu ànd ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha euh, ñu bëggoon a xam ñi nga xam ne nii ñoo aju ci njaboot gi euh, ni nga ko waxee léegi moog yeneen cheikh yi ñu gis seen liggéey ràññeeku lool ci daarul xuddoos màggal gi rek benn tomb la ci wala benn misaal la ci bëgg na ñoo xam itam naka ngeen di tàbbee ci liggéey bu am solo boobu wala naka ngeen ci taxawee rawatina nag bisum màggal gi incha allah rabbi ak yi nga xam ne nii a ngi koy soññ mbooleem ñu aju ci ñu gën a waajal bi ñu dëgmal incha allah. fi de mom kep ko xam si aduna fi fi eh, man nañu tambali ci sëñ Aliou Amar mi nga xamni mom mo fi njëkk nekkal sëñ Bayti Ndongo jor di borom kër gi. sëñ Aliou Amar dafa nekkan ko xamni dafa fonkan sëñ Mamadou Moustapha lepp lu daan dal wala mu yëngu sax naan wax Mustafa Aminata mom leppam sëñ Modou Mustafa la da daan wax ni sëñ Modou Moustapha itam dafa melni eh, signature ci xaaliss lepp lo xam si nekku ci rek loola du valable ngir fonk gum ko fonkan itam. Eh, moom moomu itam eh, nekkan ko xam ne nag di màggalu Daaru Xudoos da daan wax ni sax dañ koo muure màggal gi ci des ngir xër gum xëran ci bisu màggal gi nga xam daf ko yàgg a màggal bi mu fi jógee itam Serigne Ibrahima Dior Amar bi mu fi ñëwee moom it ca yoon woowu rek la tegu ndax foofu la ko nàmpatal mu muritu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma bi nga ni itam eh, gi jotna na ñu niñ koy waajale mooy mbokki taalibe yi nga xam ne dendal nga xamne ñom ñoy ñooy jëwri ni e, daayira bi nga xamne mom mo moo aju fii ci bir Touba dañ koy wajale moy dañuy daje e, wajal ko ci jang alquranul karim wajal ko ci jang ay khasida naka non itam am na benn daayira bu mag bu ñuy wax ahlul minan bo xam ni ña nga nekk ca Kaolack e, Serigne murtada ndjay mo jité walu kurel ga ñom at mu jot ñom ñoy ñew and ak talibib serigne ba nek fofa di jëwrin fofé muy Serigne Modou Camara ñom ñoy and Eh, guddigi itam fi lañ koy dundale insha allah taala at mu jot non ñu ko dundale noni lañ ko fasiyene defé itam insha allah ci magal gi di ñew itam noonu itam lañ koy magal ci at mu jot itam. Eh, bu ko defé nak ci loolu itam euh la lañuy wowe mboolem ko xamni ci dafa aju ci serigne bi ndax Sëriñ Mamadou Moustapha bi koy wote dafa waxan ni mom limu soxla mom moy ruhi ruhi la soxla waye soxlawul ay copar bana daan wax ni kep ko xam ci mënoo ñew kenn di bëgg ñew ñëw ji ngeen mo waroon jox na ngeen ko dajalee jox ko ke ngir mo mën ñew daal di wax ni tam jaar kep ko xam ci euh dem nga ba am nga ngantul mën ñew bu bis ba jotee na nga daal di jubal yoon wi nga xam ni mo jëm Touba ndax léegi nga dajé mala eh, malaika yi nga xam ñoy gatanu ñi nga xam ni dañoo fas yene magal si ci bis bobu motax serigne bi di serigne Ibrahima jor Amar momit kep ko aju ci mom daf lay wo ni la lepp lo nek na ko bayyi ba tew ci bis bi ndax bis bo xamni bo ci fanane suñu borom jéggal la Cheikh Modou mustapha wax ni ku ci fanane donte sàmm bi nga xamni sax da doon dox ba jékki-jékki ñew Touba euh, daal di yeesal lam nga xamni mom la doon sam ngir noppalu kese bu fi xëyee ba yew ñu jéggal ko ay bakaram ni ko ndeyam juré won lolu yaakar na ni kenn mënu ko amé fenen kenn mënu ko amé ci benen kon serigne bi nak bëggal gi nga xamni mom la yéene ak jéggal képp ko aju ci mom bëgg bu ëllëgé yowal xiyam do son Lalu motax kep ko aju ci mom mo xam gor la mo xam jigen ñom ñep fi lañuy fanan ci mbar mi ñu bokk di deglu xasida di joxe ay teranga di jang alquranul karim di ko def addi serigne bi di magal guddigi gi ba Allah set incha allahu taala buñ deme ba bët set itam mu soñat len waxtaan ak ñom ñaaxat len ci serigne bi ak itam yoon wi nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne mooy tax ab talibé mana jariñu ndax yoonu murid mom ñett yi rek mom moy tax nit ki man ci jariñu yoonu sadiq moy al hubb moy bëgg ndax serigne bi num ko tuubatan ki tuubaale abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin xidma mooy liggéey aw bi xobbin wala bëgg sab sëriñ aw hadiyaati wala joxe addiya ñett yooyu ne benn bu ci nekk nit mën na caa jaar egg ca suñ borom egg ca ngërëmul sëriñam muy bëgg sab sëriñ ku mel ni Seydina Abu Bakarin Sadiq bëgg yonent bi alayhi salaam moo tax la mu bëggan lépp mu am ko ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkan ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem seex yi yëpp naka Eh, la ca tege mooy xidma liggéey nag ndax nit ñi itam dafa laaj nag ku leen di topp toppatoo moo tax yonent bi sala wax ni eh, sayyidul xawmi xaadimuhum sangum mbindeef yi mooy ki leen di liggéeyal kon liggéey itam dafa bokk ci yoon yi nga xam nit ki mën na caa egg suñu borom la ca tege nak moy joxe adiya ñet yoy dal lañuy dajale soñu ci nit ñi soñu ci ñëpp ñu bokk fanan fi amu njéggal lool moy suñu yitte té non la taxaw ci magal gi at mu jot yalla ñu yalla dimbali bu baax. amin barkep Serigne Touba Khadim Rasoul jeuf Serigne mohammedou Amar kon mbokk yi niñ ko waxan ci ak njàlbeen rek ñu ngi won fi ci kër Serigne ñu ngi fi ci buntu kër eh, lenn ci Serigne Dongo jor Amar eh, bokon ci cheikh yi aju ci darul yag andak ak Serigne Touba waye yeesal ko ci Cheikh Modou Moustapha ren ji nak ñun koy defé at mu jot ñu àndoon ak wa diwan fassiyene mbollem mbooleem kër yi nga xam ni dañu aju ci kër gi ak mbollem secteur yi nga ni dafa laal magal gi ñu am ak ñom ay waxtaan tasaare ko ci aduna bi ba mbollem fu ab talibé nek té mëno ñew mën ko dundando ak ñun Serigne euh, Amar doni nekati kaddu yi di len jox dox daje inshallah rabbi benen jotaay ak euh, benen buntu kër ci cheikh yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha